émeute yi fi amoon mars passé bi ñuy jàppoon président Ousmane bi ñu jàppoon euh, Ousmane Sonko gouvernement bi dañoo taxaw wax ne du dara jeunesse bi ñoo amul liggéey ñoo kii xam nga situation jeunesse bi ñoo précaire loolu lañ waxoon mais li ma ci jaaxal mooy ni que ñoom dañu toog ba 9 ans door a xam souffrance su sénégalais yi ñu toog ba 10 ans président de la république commencé naan day def jokkoo ak ndaw ñi waay waay Sénégal yeewu leen. mënul dimbale ci 10 an bu ko desee ñaa ñaari at wala benn at ak xaaj mënu leen dimbale loolu ay naxe la man gawma loolu waaye damay sant yàlla nag bi nga xamante ne man bi may wax sànq ci phosphate bi ah loolu laa doon waxaale foog ma signalé ko dama ne président Macky Sall foofu la doon stage premier stage mi ndax liggéey na sama bureau papa ah, waaw waaw ah tamit foog ñu wax ko <laughs> sama yaay bu daan tibbal sama papa ceeb bi ñoom ñëpp dañ ciy lekk. donc sant yàlla <laughs> waaye tey damay kontaan ba dama naan man bokk naa ci rare artistes yi nga xam ne musuñoo nekk di am favoru euh, régime bi fi nekk moom a tax a tey am fit di wax mës naa taseeg benn jour Farba Ngom am na fu ñu tasee mu naan ma Queen Biz moom ci boppam moo wax ah yow de bokkoo ci artistes yi nga xamante ne su ma daan joxe xaru tabaski yeeg enveloppe yi musuma la cee jox bokkoo ci ma ne alhamdulilah calaa laa yëg ni sax ndeke am na artistes yoo xam ne première dame da leen di may xar ak ay enveloppe waaye man damay sant yàlla ba bokk ma ci loolu tax ndax olof Njaay dafa ne ku la abali bët fu ko neex ngay xool te man damaa bëgg a libre liberté boobu tey moo ma may tey ma am sañ-sañu taxaw di wax